bërëb bi ñu nekk nii mooy euh, rëwdu ki nga xamante ne mooy Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye ñu ngi ñuy euh, yëgal ne am na benn muxadamam bu mag a mag boo xamante ne mu ngi bàyyi ko fële ca Dakar du ñëw ñu koy wax euh, Baye Makhtar Ka Mungkin anda ànd ak mu am solo solo solo talibe yaa ngi sikar bu ba léegi yaa ngi gis ne talibe yaa sikar ber yo yo yoon ñu ngi xat ndax wax dëgg yàlla tey gàmm gi dafa nekk gàmm goo xamante ni tey dafa am beneen dimension boo xamante ni da koo jël ñu ngi leen ñu bàyyi leen rek mbokk yi ñu ñu ñu am tahu am am ñu ngeen xool li nga xamante mui moom kiga entré ki mui xamante ne moom mooy Baye Mahtar muy muqaddamu Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahim Niass Baye boobu nga xamante ne si. la la

hay na na na ya ya da da da da la da ya ya na na ya ya da la da ya ya la xamante ne néeg bi ñu nekk nii moom mooy néeg bi nga xamante ne moom moo nekk néegu ki nga xamante ne mooy Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima baay Baye euh, mu mu doon bërëb boo xamante ne ay junney junney junney taalibe dañ fiy dugg si di di di di di sàkku di sàkku si ay ñaan di ziar bi bi tëdd bi nga xamante ne mooy néegu ki nga xamante ne mooy Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye gis ngeen lal bi nga xamante ne moom moo nekk nii moom mooy euh, lal bi nga xamante ne moom mooy euh, ku tedd ku ñuy wax euh, cheikh al islam alaaji ibrahima Niass Baye muy bërëb boo xamante ne ay junni junni taalibe jóge ci horizon bu ne muy naar yeeg awsa yeek yorobaay joge fépp ci ci aduna ji diwaanu aduna bi ci aduna bi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëw di di jaar si bërëb bii nii ah I come for Muslim and beg Ibrahim God giving and I am begging God is to look say Ibrahim is you help me to